muy CNTS FC moom day am plus li ñuy wax 7004 voix. Mm-hmm. lay am muy juróom-ñaari junniy baat yoo xam ne dafa toftalu ci li mu amoon yi paase muy juróom-ñaari junni mu tooglewaat ci juróom-ñaari junni kon muy fukki junniy baat ak ñeent. Mm-hmm. kon ñu jàpp ne loolu moom bu dee performance ñu ngi ciy sant yàlla di gërëm liggéeykatu Sénégal. du tere ñu def jàngat bu gën a xóot lii nga xam ne moo wote matul sax téeméer téeméeri junni. Mm-hmm. si ñetti téeméeri junni ñi nga xam ne ñoo nangu dem sànni seeni xob matul téeméeri junni kon loolu tamit message la bu CNTS jéem a comprendre ba xam lan mooy indi taxawaay ñooñu mooy kon tey dañu war a gën a ñoŋal gën a fësal hmm. suñu taxawaay